di bëtën. jabate Maodo si bëtën. lay du dox di geestu ginnaawam. du xool dul fi mu bi ci mbay moom laa yéem. ku mel ni mbay dootul yombo. bu leen ko fàtte di ñaanal. xalifa mbay mi nekkoon yaram bi laa rafet di bëtën. jabate Maodo si bëtën. yore ci mbooloo moom lay saxoo saa yu ngir bëtu yàlla fi ko sëfoo tax du jëfe lu dul yoonoo. bu leen ko fàtte di ñaanal. pare may mi mi lekkoo. moo yoroon xilaafa gi boota. jabar gi Maodo si baatam. masul la jëfe ci néegam. lu muy rus ku di soppeem xam ko ci moom ngir maandoom maam at moo ko ko seedeel bu leen ko fàtte di ñaanal bu ni taali ba may mi fi nekkoon ci laafa ji booto njaboot bi moo da si booto lay bu daan doxantu ci kaw taaxam tiwaawan fàttali li di ko seetaan mu groupe Futurs Médias ah ça fait cinq ans ñu fi daal vraiment euh, maire bi daal li moom mën na wax moom vraiment bëri donc loolu xajul si reportage tout le monde l'a depuis qu'on est vraiment elle prend soin de jours fii fii la añee fii la ñuy reeree fii la fanaan gërëm laaj donc loolu vraiment ku ku la mën a defal loolu vraiment amul amoo lu loo koy fay donc euh, ñun ñëpp ah, ñu ngi koy remercier di remercier doomam ñoom mami ah, ak euh, sama turando baba bu nekk États-Unis mm-hmm. ah, man maa ngi lay sax man doomam la may woowee vraiment compte tenu vraiment des relations qu'on a eues ngi koy ñaanal yàlla nañu ko may bu fan ak wér-gu-yaram xam nga ñu koy fekk ay déwén yu bëri

oustaz Mor Fall oustaz Mor Fall mu ngi Énergie FM ñu ñëw amoon fu ñu dal boobu burdu bi la woon ba ma ñëwee si burdu bi euh, ñëw nuyu si ko euh, jarbaat bu ñëw nuyu si tantam loolu mu laaj ma ma wax dama ñëw liggéey si nag moom moo tax mun ma fi dal parce que dama nekk ay sumay collègue mun na ma déedéet yow mu waroo ñëw tuwaan fenn di dal di dal fenn fu sama kër léegi dama woo sa collègue yi ngeen ñëw fii fii mooy seen kër

defal ñu lepp Mor Fall ne ah lii de mënuñu delluwaat nañ fi toog bañ fi toogee tamit euh di dem maison de la presse suñ fa demee tamit dañuy tassé ay confrères yu am ay difficultés fu ñu dal ay confrères lañuy tassé yi nga xam day am difficulté fu ñu dal parce que dañu doon euh, ñëw euh, ba gamu Tiwaawan am problème fan la ñuy dal léegi su ko defee rek man dama né comme que affaire gamu gàmmu la benn bëss ñaari bés la am nañ fi nekk donc euh, journaliste bi ku ma tasee rek ku am problème fu mu daal ma ne ñooñu dem am nañ fu ñu dal fi nga xam ne nii amul benn problème noonu daal lañ ko jàppee journaliste bu am problème fu mu dal woo ma man leen ñëwal tata merem taxaan fii ba euh, journaliste yi di ñëw waaye tamit mention spéciale groupe Futur Média kooku dama koy wax bu baax ñu dégg ko parce que Mor bi nga xam ni ba def di tëyee mu dem Futur Média gaa waa Futurs Médias war a ñëw fii mu ne xaaral moo woo amee din ñu xool tax mu ne dal kër Tata ba mu ko waxee tamit moo ànd fi ak délégation ba ñuy waxtaan ak maire bi di fi dal booba léegi ñoom it macha allah ñu ngi fi ñëw si condition yu exceptionnelle xoolal tey li fi xew wii fii lañ fi installé pour mu def seen liggéey donc tey kër Marème Taxa bi nga xam ne nii journaliste tuddee nañ ko maire Teresa journaliste yi amul dara muy envier maison de la presse parce que am nañu léegi fii wii fii donc di ko rafetlu baax na yàlla ko fi yalla baye yalla ko fi yalla baye te limi def ci goudi yonente bi yàlla ko ko yàlla fay parce que ñun mu mënuñu ko ko fay yalla na ko ko yàlla fay képp ku fi ñew tamit yalla fi fekk jàmm suy dem bàyyi fi jàmm li ñi ñaan fi tam yalla nañu ko yàlla defal si euh, résumé dal noonu la mën expliquer dal bi nga xam moy dal journaliste léegi di kër mère manam taxa euh maman Teresa au journaliste yi parce que am sax mu ngi léegi di sëy bi Italie mooy ba fi nekkee toppatoo journaliste rek la fi doon nekkee. Mm-hmm. yaayam mag la waaye ñoom tamit am na ay bu baax ñu koy jàppale. Euh, suñ fi ñëwee gis nga sécurité bi am na ay force de l'ordre yu fi nekk. Mm-hmm. condition yi baax na vraiment sant rek sant doole ci sant di ñaan tamit yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwéni déwén lépp li liñ fi ñaan tamit ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. Euh, di wax ni que baaxaay maire bi foo ko natt ko fa ndaxte benn anecdote laa lay wax. bañ fi dalee di ñëw ba léegi du ma tudd nag euh, organe bi am na ñi nga xam ne organisé woon gis li muy def ne lii de vraiment suñ doon suñ ko doon def feneen dina metti trop euh, concerté wu ñëw bugg yëkkati benn somme di ko ko jox waaye maire dafa dafa dafa daf ko bañ loolu da kay day wane ne rek euh, baaxaayam te li muy def nii yàlla ak yonent bi rek moo tax mu koy def keneen taxul mu koy def loolu rek laa si bëggoon yoon Cheikh te Diop RFM

Euh, da nga xool booy dugg si kër nekk gan ci kalamu ki nga xamante ne moom ngay ñëw seet si mën ngaa gis lépp ci xar kalamam mais bu bu ñu dugg see kalam gu yaatu bu rafet la ñuy woon ba keroog ñu fi jógee. moi je pense que ne moom sax damay bëgg indi ci histoire li ñu fi indi ci kër gi ndaxte dañuy am benn dal boo xam ne fa lañ jëkkoon a nekk fa lañ jëkkoon a dem mais ba ñu demee gis bërëb ba xat. bon pratiquement gaay yi naan final daal baaxul après nak man ma genn mané xalé xaaral ma dem peut être mën na dinaa gis ño xamni ni ñu mëna jappalé jàppale bu ma ñëwee ci juma ñi am benn way bu ma dajal ku baax un technicien mu ma dal bàyyi ma yóbbu leen benn kër bo xamni fo bu ngeen fa démé ngeen am problème té maire bi na ak accueil muy maire tax mais bi mo ñëwé ba wax ko dana automatiquement demal rapidement ngeen daw indi seen bagage ngeen ñu ci jour boobu la ñëw indi gaay installé depuis 3 ans ngi ni defe naa ne toujours ñi ngi fii te yokkute lañ fi gis ñi ñaanal ñëpp ñu fa def ko ay ati at ñaanal groupe bi lépp lu ñu mën ren ñu mën ko ñu mën lu ko ëpp déwén vraiment euh, ñëpp ñëw teew ñëpp fekke euh, maa ngi tudd Mantouré maa ngi nekk rajo euh, Futur Média balaa ma doon commencé juste que ñu ask ma indi tissu bi ma wan ko nit ñi gis ko c'est-à-dire dalal la maire bi dalay dalal ba pare jox la nga lekk jox la nga naan jox la fu ngay tëdd teg si jox la tissu ne la pour nga gàmmoo

kon maire bi man dama koy bàyyi ak yàlla rek ndax li muy def defal na ma ko man de waaye defe naa ne euh, borom bés bi bu ko ko fayee moom dina yokk ba gis ko man maa ngi koy gërëm bu baax te itam di ko ñaanal gudd fan ak wér yalla defal ko njabootam yëpp yalla defal ko itam nak nag àllaaxira ci gëna rafet yi alaykum waaw euh, ginaaw lolu ñu ngi nuyu ñep ci sant ñëpp ñaanal ñëpp ñu wax ne dal gamu bi ren bokoy tak groupe Futurs media notamment radio bi moy ñetti at ñuy dal fi waaye soxna euh keroog biñ ko xamé ba légui dara soppeekuwul ci doxalinam lu dul day yokk teraanga yi du soxla soo xam ne dañ koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax ñu yàgg ko fekk eh, ay gàmmu yu bari yàlla wéral këram eh, ndax eh, kër gi ku dugg fii xam ne fu waay mën a daal ci Tiwaawan yàlla mënoo am kër gu mel nii dal yu yaatu lépp nekk sa disposition te loolu la ci laaj benn dërëm benn dërëm du la ko ci bëggul sax ngay jënd ci biti di indi ci biir xam nga ñun fu ñu masaan nekk fu ñu masaan nekk bool yi day bari fu ñu masaan nekk bool yi day bari dañuy indi bool partout waaye ñemeetuñ ko fii ndax li ma ñuy defal fii ruus nañu sax jële lekk di ko dugal ci biir kër gi ku ne xam na ne fu ne dañu fanaan yekkal fu ne dañ doon dajale bool yëpp chauffeur yi di dem di ñëw waaye dépp bi ñu duggee ci kër gi suñuy ngor suñu jom mayatunu ñuy jëlee lekk di koy liggéey foofu sax boo ko jëndee da koy bokk sa biir yére man léeg-léeg ma bokk dara sax mel ni ko jënd dàll keroog dama ne ko dàll naa jënd woon te fekk jëndiwu ma sax dàll maa romb benn affaire rek jënd ko ndax buy xam ne loolu neex na ma rek mu koy jënd te loolu laa doon bañ yooyu yëpp ci xeeti mbaax la xeeti teranga moom dañ koy ñaanal yàlla guddal faram euh, ak doomam ma mi sàmm ko amoon taxawaay la ci bés bi daan ci ñaax waajuram bu ko neexoon ñaax ko ci yeneen kër gi yàlla dogal na yàllaa ñu booleek moom gis nga Mamadou Ibra Kane directeur général ak Birane Ndour bu ñu bu ñu siyaaree depuis daaw bu ñu siyaaree ba ñëw fii lañuy jaar doogu ñibbi ndax li waral loolu ku la téyel sa njaboot ci bërëb yu mel nii ak temps yu mel nii te mosuñu laa jàmbat mosuñu waa jàmbat ñooñu da nga leen di seeti tatagal leen waxtaan ak ñoom soxna Maram tax daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ñu yàgg ko fi fekk ay gàmmu gàmmu gàmmu fii ñu nekk nag rajo bi ak IGFM ak l'observateur vraiment dal gu am solo année bu jot nag mu yokkal ñu néeg yi néeg yi année bu jot mu yokkal ñu ndekki boo xoolee kër gi ni mu koy transformé nee na transformé ko pour dara yéen laa koy transformé am na côté boo xam ne sax nee nañu bu déwénee daf ñu koy affecté carrément kooku te ñun joxuñu ko dara te loo yëkk mën a la téye laajuñu un franc ñemewoo jënd lekk dugal ci biir kër gi ndax du ko nangu ku mel noonu nag dañ koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla dëgëral taxawaayam te it mu ngi koy def ci mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam di ci jaamu yàlla loolu yàlla na ko yàlla fay lépp luy xeetu bernde daal dina ko def ci kër gi di di ñu ko jox di ko jox ñu fiy ñëw bu añi commencé seetul ku fi dalul ku fi dalul boo ci yemee daal bu soobee yàlla même boo fekkee nit ñi añ ba pare bu déggee nga jàmbat sax ñu ne nañ ko lal te nag lekk li gën a neex ci lekk lu mu neex neex neex te présentation ba yiwul boo def score war faa bàyyi lekk googu dem wutil beneen lekk balaa ngay xam nit yéene ko balaa koy indi ngay xam ne yéene na la ko lal tapi teg ndox teg kudd teg musuwaar teg lépp teg cure-dent doo ko indi lekk xam nga ne kooku déjà jox na la appétit appétit lekk nekkul ci ay ay jumbo nekkul ci ay képp magi déedéet yooyu safal lu tudd yooyu du joxe appétit appétit li koy joxe nañ la koy taajalee moo lay jox appétit ñun ñoo bañ sax waaye kon daf ñu takkal ay babet ndax bëggul sax ñu takk bu ñuy lekk kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dolli suturaam Lamine Thiam nii kii eh, filmé ko waaye génne waale ko rek dama ko teg loxo kii dañ koy ñaanal yàlla yàlla doon sutura mooy loxo yi eh, maire bi lépp lu ñuy def kuy ñëw ci néeg fooy dal moo koy toppatoo moo koy lal moo koy def lépp lekk gi moo koy toppatoo bu ñu lekkee ba ci digg bi mu ñëw yëndu xool ndax dañuy dolli ma la dolliwul moom it yàlla na yàlla guddal faram yàlla yàlla faj aajoom tuyaaba bu ci soxna si am rek yàlla na ko teg xale moom yi ndax tamit dafa am loo xam ne nit ñi duñ ko waaye dañ koy seetlu te ñun xam nga seetlu rek lañ ñu jàngal ak déglu ak xool wax kon ñu ngi ñaanal ñëpp ñu suturaal yàlla yàlla suturaal ñëpp di ñaanal ñëpp bésu tey nag di yor yoru gàmmu euh, ci karam tuuti nag Ndiaga Seck niñ ko daan defee at mu jot euh, bu huit heures jotee dana am lu ñu defaat fii danañ fi def ay jàng yu am solo fii ci salle bi ndax ñetti at ngi ñu koy def fële lañ ko daan defee ci bâtiment fële léegi fii ci salle bi lañ koy def bu ko defee ñu yeggali film bi waxtaan ci euh, jagleel ko ko defal ko ko cadeau defal ko ko cadeau boo xam bu toogee ba këram sax mën na ko tegaat di ko seetaan lu dem ci bi euh, di siyaar di gërëm di gërëm Arona Fall aussi ak équipe bi ngeen IGFM parce que bii mooy dem ci internet bi mooy wër àdduna àdduna yëpp dañ koy kon euh, ñu ngi leen di ñaanal yéen tamit IGFM mi ngi doog juddu bii mooy seen première yal na ngeen gàmmuwaat lu bari bu gën koo yaatal muy produit bu bees si wu euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax jërë ngeen jëf. la ma doon wax yëpp. la ma doon wax yëpp góor góor na ko. yal na yàlla leeral sa dem. maanaam taxaana ñu mënuñu ko fay. bañ ko xamee amul lu mu dund defar amul amul. fii boo fi ñëwee ñun dañuy maanaam mu ñëw mu gàmm ci gàmmu seetlu si. waaye day ñu seetlu bi ñu fi commencé dal ba léegi sant yàlla la amul lu muy def amul yenn lekk gi naan gi ñu bëgg a tëdd mu toog ba bët set di garder nit ñi di garder nit ñi ndax bëggul kenn jóge fi jàmm lu mu la naq lépp lu mu am lu mu am da koy dégale ren ba déwén te leen buy demaat demaat ak loxo nen yenn yàlla guddal sa fan yenn yàlla guddal sa yàlla bàyyi la fi nga am téeméeri at lépp loo am ren yenn na nga am lu ko asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam man Alaaji Cheikh Seck

duudi que mii gàmmu gàmmu bi daan yore siwo ndox di maye ndox ci biir Tiwaawan te yàlla dogal muy dox di dox bay gàmmu gàmmu gi loolu joxuñu a may yàlla defal ma may itam mais président commission ci réew Serigne Babacar Sy loolu ci kattan yàlla ñu ngi ko gërëm suñu papa Alaaji Mbay doon mu mel ni rek fii ni ñëw na

les signes qui font de son nom un sujet d'admiration, de haine ou d'indifférence. Mon nag c'est un sujet d'admiration Son nom son Marème kenn ku ne ci Sénégal bu ma mais kenn ku si avec son image avec son abnégation ak toogaayam ak njaboote bu la ne soxna Marème rek la ngay gën a bëgg mooy yàlla naa mel ni moom nit ki nag bu ci koom rafetul doo ñaan yàlla mel ni moom kon moom mii ci kàttanu yàlla lii ma lay wax nii waxuma ko pour wut lu ko neex su fekkee ne daa mel na war a mel du ma am taxawaay fii di wax lenn loo xam ne day waroo ak jikko waxuma ko it bu tagg ko ko ndax moom lépp lu muy def da koy def rek ngir yont yàlla ma xam ci kàttanu yàlla ak ma xam bëggul sax lu koy tudd mu mel ne day puukaréwu lii ni wax sax xam ni néewu ko waaye nag ku gis nen ni nen a ngi ku gis nen ni nen a ngi kon nag ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañ koy ñaanal suñu sœur la ba doon nekkee xale bu tuuti dañ daal di ñëw fii mu ni teral ba fa tabaarakallaahu ba nëgëni si loolu yàlla def na ci kàttanu yàlla ak mbaaxam muy ñaan yàlla mu lew ci barke borom guddi gi lépp lu mu mën ren yàlla na ko yàlla def man ko lu ëpp déen te yàlla may

ci moom mais ku lim juum dañuy ñaan yàlla daal guddi gi li mu ëmb sutura ak teraanga yàlla na ko ci yàlla sotti ba mu doyal sëkk sëkk sëkk ba lépp loo xam ne bëgg na koo def rek mu def ko li mu defal groupe fi ci média nag mais loolu kim ko defal te tax mu def ko mais kooku itam référence la ndax Youssou Ndour Youssou Ndour soo nom rime avec le travail kon dafa tabarakallah bu ñëwee tey jii jël espace bu mel nii jagle ko groupe Futurs Médias fa tabarakallah sous le contrôle de Aladji Ngay Jaay je pense bien loolu euh, te li mu wax léegi loolu rek la on ne fait que répéter ce qu'il a dit ala ba ma tam ñu ngi koy nuyu njaga yi njaga alaaji seen njaga njaga njaga Seck sama xarit la moom moo ne ma kandem ma yóbbu la fi nu dal ma ne ko fa nga yóbbu de ba demee dinañ ma duma ndax soxna Mariam gëj damaa gis lool waaye fa tabarakalla yàlla yàlla dolli jàmm yàlla bu muy sunu mujj gàmm yàlla defal mu ci li ak sutura wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa di yàlla wax yonent yàlla Muhammad yàlla yàlla dugal foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah gis nga dama am tuuti ma wax ci li nga wax ci Youssou Ndour Youssou yaay wax nga wàccu awan Youssou këram la ñëw njabootam kër seen kër la di ñëw waaw yaayam fii la sa sa sa soog. waaw kon nag maa ngi yuusu man maa ngi tuddee Oustaz Mor Thiam. nekk RFM. ñëw fii ci gàmmu gi. ñu dal fii ci kër Adja Marème ñu daan fi dal nag booba yàgg na ba yàlla dogal ren groupe bi pratiquement mun naa wax ne trois tiers groupe bi ñëw dal fii loolu nag dafa am lu muy firndeel. day wane ni soxna si amul morom ndax wax na ma ci làmmiñu boppam mu ni ma. fi nga xam ne maa ngi koy def ci gàmmoo gi ba ma nekkee xale nekk am benn. kër goo xam ne ñaari néeg ci ni ak benn duus ci laa commencé di defal yonent bi donc mu gëm ni moom lépp lu mu def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su déwénee soo borom daf koy fulal loolu nag may na ko mu am xol boo xamante ni day def ay teraan fii boo fi ñëwee boo génnee ci biti jënd benn kaasu ndox pour naan ko soo ñëwee dafay mel parce que nee na dafa bëgg di ñaq di joxe yonent bi ak waa kër yonent bi ak ñu sopp yonent bi saa sallam loolu nag euh, ñun mën nañ ci seede te bu ñu ñëwee fii euh, du ma wax ne dinañ fi gis lu ñu dàq suñu kër wante li tax bu ñu wax lu dàq suñu kër parce que kenn ku ci nekk li ngay am di ko ñaqal sa bopp boo koy lekk ci ngay gën nekk à l'aise mais bu ñëwee fii lépp ci xeetu mbaax xeetu teraange daf ñu koy defal ubbi kanamam ubbi néegam ubbi xolam ubbi waañam lépp lu fa nekk mu génnee ko jox mu lu ñu soxla mu indil ñu ko. loolu moom nag dañ koy seede di ko ñaanal yàlla yàlla yokk wax naa léegi ci émission bi waroon def wan naa ni ñun bi ñu nekkee fii dal ci këram nammuñu dara da leen di wan ni maa leen jur maa leen yéene maa leen defal teraanga kon yàlla na ko yàlla fay yiw fii lañ daan toog fekk fii Alaaji Ibrahima Samb mu ñëw toog fii ñu fekk fii doomam mami mu ànd ak ñun ma nga fële nekk ca sëyam bi sëy yàlla na ko yàlla jàppale pour wax rek ni kër gi suñu kër la ma sa doon daf ñu doon wax bu ngeen dee ñëw ñëw leen suñu ñëw ba egsi ba fii am na benn année boo xam dañoo ñëw ba fii wax ko ni ko ñoo ngi ci buntu kër gi mu woo gardien bi pour mu tijjil ñu kër gi pour ñu toog te moom nekku fi donc loolu wane na ni boole nañu ci boppam yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla yokk ko wér parce que avant gàmm gi xawoon na jaga di tuuti wante yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla yokk ko wér yokk ko sutura at mu nekk lu mu mën yàlla na ko gën a man lu ko yàlla defal ci teraanga ak mbaax yàlla na ko yàlla dollil dollil ko ba dollil ko ku ko yéene ñu ni tamit nag yàlla may nu nu am fi ay barab yoo xamante ne bii dañuy def ni moom parce que lu baax jar na toppandoo waaw kay yàlla na yàlla na yàlla dolli ko teraanga mais yàlla na yàlla may suñu yëfi bopp yoo ne bii yi def comme ni muy def ay jullit di fa dal leen di teral yal ko yàlla def macha allah. wa tabarakallah ban Yankuba wa tabarakallah man muske ba tantula mba jayla ko kila ronkilaalu moɓere kan dañi alhaji mari siko wajibol taatul haadi o mahabbatuhu kono kiila niya kamo kanoma wolɓe tan aɗum niyanoma fana kono sey ka dépense o ko alcool wolɓe tan أقول غربت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من الله على لا كانوا كنك على كلا صلى الله عليه وسلم لا كلا كانوا على ما كانوا كنا من مسكبات تندم باجيلا أي من بنيا ما شاء الله المالا بيدي على أرجان ولا كلا فرمو سابلا ألو ماري أبمن دم مسلمي أكون ألما فعل مسلمي أكون كلا فرمو سابلا ay fen ben dépassé jang direm milaro alma ala fala arjana jannatul firdaus ma qala subhan innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula ko yalla ko yalla may mbatam dula mbajayla kila hormo sabra adelen der gum da bedi molla mankor bondi je man fem bondi je kon meda je depuis 2008 ben so kon jang nel man kuranjo man jiyojo ma feñjo bellade kono mbajelo kam aro mara e fen fenki je wa ma tukaddimu li anfusikum tajiduhu indallah kono momo nde fen fen en bone lakara roy bortara je kono dunya jam wa ma hayatu dunya fil akhiratu illa mata'un kono nak dunya ani lakara nyako to amanta mi handa ren fongo kondo kono mo nyantere dunya préparer ale cheikh mansour keba ko hasibu anfusakum qabla an tuhasibu fil akhirah kono ne fam ko bo dunya kon jam mashallah wala mo de fen kendo bon ko men sadabe nyami ko jariyat fago kilawo sallallahu alaihi wasallam idha mata insanu kata amalu illa min salasa sadakati jariyatu aw ilmun yuntafa aw min ba'di aw waladu salih kon fa tabarakallah aw ɓe mbego ala tan koti batela mbaɗel wahiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin lamin cam waaw sant yàlla jidi ci yonte bi del di di bàyyi neef dañ koy bàyyi yàlla ak yonte bi rek su ñun amuñ fayal daanaka euh, depuis quatre-vingt-cinq ba léegi ñu ñëw ci kër gi ñëw ci kër gi ba léegi lii moo fi mas di nekk toppatoo doomu aadama yi di lekk du naan du fuy lépp tëdduwaay yeeg bëgg nu gan yi kontaane su dara manqué sax mooy dawal xool ndax suur nañ ndax mànd nañ ndax am nañ fuy L'homme yo yow demain, il bi mais lu vous ngi taxaw pour su qui des trois mois avant ñuy vous Magal. màggal commencé na préparé di dina def des bi dix fois di préparé pour gane da koy préparé avant su des jours bi fi la koy ba ni qui gi lépp toppatoo doomu adama yi toppatoo doomu adama mooy mooy jaamu yàlla nit ki moom amoo amuloo lenn lu dul toppatoo doomu adama yi ku toppatoo doomu adama yi nag fu ñeent fukki nit daje su benn doomu adama su ci bëggee rek su xolam seddee rek suñu borom pay bi amul lu mu toll lu mu nag juróom fukki nit wala téeméeri nit ak lu topp ñëw nga jox leen lu lekk di naan di sang kooku moom amul lu ci ci wax dëgg yàlla moom macha allah. waaw maa ngi nuyu ñëpp mbooloo mbooloo di ñàkk fi nekk ñu fi teew gàmm yi egg si jàmm dugg nañ si jàmm yàlla na fekkee déwén boole ko boole ko mbooloo jullit yëpp gàmm ñu ñaaroon ñu ñëwoon déwén ñaan na yàlla pour ñu fekkee rek fekkee ñu ko fekkee ñaan nañu si dee. yal na yàlla xaree àjjana ñi ko fekkee tey tamit yal yàlla guddal seen fan ëllëg tamit ñu fekkee ak jàmm ak si euh, teggin ci gàmmu bi gàmmu mawlid mawlid nag ba gàmmu yë yërënt ci juddu yërënt sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñooy ñaan bi su teer bi képp ku ñëw def sa xaajo li nga xam ne dërëm la yàlla ko yàlla fayal ak milliard mais nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla may gudd fan ak ko ñëw jox la dimbali la nga ngay lekk ngay naan nga ne sa këram kooku moom kenn mu kaa fay ci dul yàlla yàlla dafa ne fa man yaa man iska eh, lu baax la yàlla moo la ko fa man fa man amila nafsi fa man asaha fa alayha def lu baax yàlla moo lay fay ci ku def lu bon sa kaw la nekk léegi nag ñoo koy ñaanal yàlla fi yàlla may gudd fan ak wér gu yaram gam fekkee dëkk Kaston baax ba dee rek ah. di def lu baax si gàmmu gi mhm. yal nañ ko teewee ay déwén déwén yu bare bare bare sa ndigal maa dafa rafet sax mare mënuñu koo fay yàlla moo ko mën a fay di ko ñaanal fan bu gudd gudd gudd bi mooy sa ñaata at nga fiy ñëw juróomi at maa ngi ñëw fii si kër gi ñuy def lu baax rek am ko yàlla fay man maay Fatou Diop Thiès laa jógee Adja de xanaa baax rek ah. di ko ñaanal rek yàlla na yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ah. yokku wér ndax mënuñu koo fay moom ah. li muy def ci ñun ñëpp ndax ndax Diop moo ñu booleeg ñoom sama rakk bu góor te gis nañu ni ñu ko jàppe jàppaay taxawaay bu rafet bi mooy sa ñaata at lii mooy sama ñetteel bi at ma fi dal. Ah. waaye heure moo ma daal moom day mel ni day gën a neex. Ah, day gën a neex lépp daal moom moom moom day defar lépp rek ñu ne ñu ñëw moom. nañu ñëw baax rek daal di ko ñaanal yàlla. waaw maire bi moom wax dëgg yàlla suñu maire la suñu yaay la suñu lépp waaye wax yàlla ku baax la. parce que moom boo gisee ñu ñëw fii ah, moom moo ko waral. waaw dañ na ko ba bisu kii bi ñun ñëpp dañoo solo. Mm-hmm. waaw ndax baaxatul ñu def loolu. jërëjëf yàlla bu baax yàlla yàlla guddal fanam. amiin waay sëñ yow noo tudd yow. am Seydou laa tudd. ah Seydou Ba jógee Thiès. Thiès. waaw wax ci Adja Taxa. kii kii sama copain sama doom ndeyam. mais fu ma. mère bi sama mère bi. yaa ngi dégg te bëriwul woon lu may toog Thiès àll ba laa dégg mu ne ma sama meen moom naa def le tout pour nga gis ko nag dafa baax yaa ngi dégg mu ne ah, sa mère bi de moom naa fexe ba gis ko tey jii si gàmm incha allah mm-hmm. yaa ngi dégg vraiment lu rafet laay dégg si moom mu rafet na kii sama copain la mm-hmm. fu ma tourné ay mbiram la may wax sama yaay ji laa yëpp sama yaay ji yëpp man yow de sa mère boobu ku baax la war koo mën a xam maay aw basi maa fatame no mun a accueillir nit ñi wax dëgg yàlla ñun de yàgg nañ fee dal ma kii moo ñu fi indi woon Lamine Thiam te Lamine Thiam xaritam la bras droit am moo moo ñu tax a ñëw dem dem démb bi ñu fi ñëwee sax dafa ne duñ dem fekk xam nga suñu benn dëkk doom moo ñu boo fële dalal ñu dañoo egg si boobu nuyu ko rek ñu téye suñu bagage ak waaye ñun fii moo doon suñu engrais dal dëgg yàlla fi dañu baax ñu dañuy akkee yi gis na léegi bi ñu eggee léegi dafa ne dugg leen ci salle bi ngeen toog bisimilah ayaa ah, may doon taxaa daal dafa baax baax dafa mën a akkee yi dañ dafa yar Adja looy wax ci Adja Taxa. xanaa dafa baax rek. dafa baax rek laa ci na lépp. ci moom rek mooy li sama mag ji wax bu baax la. bu ñëpp xam la. ku fi ñëw da fi am jàmm da nga fi am salaam li ngay wut da ko fi am. ñu ngi ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam. ba mu njaboot fi am fii ay sëta ci sëtaat. ba ñëpp ku ñëw rek dal ci kër gi man mi daara Jolof laa jóge waaye su demee incha allah am naa dalukaay toujours léegi fii rek laay ñëw ànd ak sama njaboot incha allah man maay Mamadou Diop maay jóge Thiès ajaa taxaa xaraa dañuy kontaan ndax Mamadou Diop mii ngay laaj ñun ñu ngi jóge Thiès maa indaale daayira bu jóge fële Thiès ni ñuy wax kër hmm. ajaa taxa nag moom li ñuy wax ci moom bari na bariwul ndax ku gàddu daayira bi jël la indi la fii te booy ñëw danaan mbuusu ndox koy daal ñetti at ñuy dal fii loolu laay raadu heure bi ñuy ñëw danaan jóg mu naan mbuusu ndox koy daal. te boo ñëwee fii da ngay ndi añ weer weer ndey fi nekk dara du ñu boo ñëwee ñu dalal la ci dalwaay bi tuwaat kàlla macha allah man moom li ñu ñaanal ko.

هدى قلبي للخيال قصرا عندي خسرا وصداني قد جفا طيف الكرم بين هدى قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرم هجر يقلل السلام قد قد جفا طيف الكرم من يشف شبحي وتسدى هرولا من هرولا هرولا سيل دمعي في انفصال هجرا هذا قلبي من خير القسرة قسرة وسطني قد جفا طيف الكرى بين ويبكائي لا تقل ما بين خيفتان خيفتان بل عذلي إن شاني قد يرى هجا قلبي بالخيال قد سرى فرقي قد سرى قد جفا طيف الكرى بيني في ضلوعي لوعة نار الجوى بيني الجوى الجوى كيف أثني كل سيد في الفرى هذا قلبي من خيال قد سرى فرقي قد سرى المصطفى طيف القرى من فدليلي عن سوائل فخيا من فخيا فخيا أراني ببهاء قد برا هجا قلبي بالخيال قد سرى رقيبة سرى وصداني قد جفا طيف الكرم من قد سقاني ما سقاني في جنان في جنان في جنان عراني من رداد معرى رجا قلبي بالخيال قد سرى رجي قد سرى والثماني قد جفا طيف الكرم خفى البعد بعيشي ما خفى ما خفى ما خفى إن عيشي من كدور في الثرى هذا قلبي بخيال قد سرى قد سرى وصداني قد جفى طيف الكرى من عز وسلي لمغيب به قد سما قد سما منه وجه من محمد رسول الله moo tax Seydi Laaji Malick ne yonent bi ne bu ko tëkkale instant mukk sama yaay dégg Seex Laaji Malick ne bu dee saxeel daa dem ci yonent yàlla instant moo tax Serigne Cheikh Tidiane Sy ne ku bàyyi loo gis lu jëntu ku bàyyi loo gis lu jëntu ñu ne Serigne Cheikh mu ne la daloon doyen ba ca Mbour daal la dal sëñ Ndiaye Serigne Cheikh Tidiane Seck ko wax nee na ku bàyyi loo gis lijjanti ko la daloon doyen ba ca ca la dal sëñ Ndiaye ñu ne Serigne Cheikh lu dal doyen mu ne xool waaj ab doyen la muur lay monte fërët du korom ak soxla. Oustaz léeg-léeg sax xanaa nga baale waaye moom nga baale moom ne waa Caajaay Serigne Cheikh ko wax nee na waa Caajaay waa Caajaay am ni hôpital principal ne jëlee ko principal jëm ak moom Caajaay ne ñëw Mbuur romb ko ay minutes ne mu ñëw ñu jël ñu kees gi teg ko ci sa place Serigne si ne doyen bi arrêté leen ci guddi nee na kees gi lal ñu ne ko ñëw la mu ne déedéet suukar la da ngeen may teg ci. ah dañ naka dégg sëriñ Cheikh ne mu ne mu ne mu ne ne ubbi leen ko déedéet ubbi la sa bopp ne mu ñëw ubbi ko fekk ko nu mu tëddee ak dara bu weex yi ko sàngee ne mu ne dina suukar sëriñ Cheikh ne daa taal bi ñëpp ko néew bi néew bi ne ko si caajaay laa waaye dimanche seen jiir Cheikh El Hadj Malick ne altine la Mouhamad tudd waaye dimanche ci guddi la wax ak yaayam te nekk ci biir yaayam kat wax ak yaayam yaay ji te bu doon tey waxaat ji bu doon tey kenn du ko dégg billahi dañoo koy rey seen doom ak la dugg def nañu ci borom gaaw waaye dimanche si guddi xaj la wax ak ci biiram ne ko yaay ci quatre heures demi ca fajar ca laay judd ñu ne Seex Alaaji Maalik mu ne yeneen ci bi judduwul guddi judduwul bëccëg ñu ne Maodo lu tax mu ne bu juddoo guddi guddi day ndamu ci kaw bëccëg xaj bi raay bu juddoo bëccëg bëccëg ndamu ci kaw guddi yi moo tax yàlla bàyyi ba guddi gi jeex tàkk te dugg góoñu ci bëccëg ci diggante bi ca la Muhammad judd Muhammad ne yaayam ëllëg ci quatre heures et demie bu trois nga sol lu weex jublu pénk man Mouhamad danaa jub tegguma gaañ ñu ne Seex laaj maa mu ne Aminatu neen bi quatre heures et demie jotee ma sol lu weex Aminatu neen may doxal ëtt Aminatu nee na maa ngi jublu pénk Aminatu nee ma jekk bayaan mel ni dañu maa polone mënatumaa dox pas en avant mënatumaa dox pas en arrière amin nee mu sukk fekk Mouhamad ay judd juddukat Seex Alaaji Maalik ne maa toog Tiwaawan xam naa fa Mouhamad jaar ñu ne Maodo mu ne Mouhamad ba muy judd ci jumbaxu yaayam la jaar ndax kees usa nee mu judd rek liir bu judd màkka gaa am këllugul lay dëpp waaye Seex Alaaji Maalik ne këll nga xërëm la ñu ne Maodo ku daan yor këll gi Alaaji Maalik ne sage-femme ba daan réew la jigéen mooy gàddu këll ñu sax xam naa ñaata pettaaw ci daan ne ñu ne Maodo mu ne juróom benn fukki pettaaw ak ñett mu tombé bii moo jaral di dund Muhammad def nañu Seex Alaaji Maalik xaaj na nga Alaaji Maalik ne moom ma ñu annoncé ko Makka ne mo ne Aminatu wasin na xoolal saas femme ànd ak notable màkk ya jëm kër Aminatu waaye saas femme li ci gëna a yéene nee daa ñëw fekk Aminatu di fóot ak tey nee fekk yaayu Mouhamad di fóot nee saas femme bi nag liir mu ne liir baa ngi ci waaye boo duggee nag na nga tëj ci biir ndax liir bi daa indaale mbiram ma ne asamaan ah. ginnaaw baaxoowul wàcc bu xësee wàcc benn yoon da raay balaa dellu ndax xamoo kañ muy wàccaat dafa am loolu ko ko am mu cher jafe tey ci guddi Tiwaawan gii léegi rek téléphone am nit ñaa ngi ci woote pour bëgg mu ñëw defal leen waxtaan ma ne ko ah, doo dem de doo dem de faaw nga toog fii ba nu pare man ma dem jàkka ja yow nga doog a dem defi sa waxtaan parce kenn ku ne xam na ni li muy génne ci xam-xam li muy génne ci xam euh, euh, waxtaan li muy orienté nit pour mu tegu ci diine addunaam yëpp ci la ko jëme mu mel ni noonu nag yàllaa nu baaxe suñu bëgg yonent bi tax ak jëm yi nga xam ne dañoo bëgg yonent bi def nan lii ba bu waxtu yi jotee ñoom ñëppay toog ñëw di nu xaar alhamdulilah ndax mën nan koo def loo feebaru soof daanu ma feebaru soof <laughs> xam luy feebaru soofa ah? nga tàmbali ci mbooloo ni salaamaaleykum ñëpp ni ciy taxaw. ab sëriñ du ko faj. ak ñaan mënu ci dara docteur du ko faj. yàlla mu yàlla musal ci feebaru soof nga ni ci mbooloo bismillah nit ñi ni ci loolu nag ñun dalunu dalul sama xarit bii nga xam ne macha allah lu mu ñàkk rek diine ko ko xañ nag coono bu ne la la dal ci diine jël na jëmmam jébbal ko lislaam di reyante ngir l'islam jëm ca kaw ku ko mere it l'islam rek a nga mere tey. léegi sax dañuy a tàng moo gën a baax ci àdduna ndax ñun nooy nekk li ma ko ñi may wax ak li ñuy li ñuy waxtaane boo ko fekkee ni muy dunde waaye booy laal nag lislaam muy yëngu maam Seydi Hadji Malick noonu la waxoon mbaaxam gaa gi yëwam ga teraanga jaam na mu soppee woon yàlla ni mu soppi woon jaam ñi bëgg leen a dimbali waaye booy lislaam muy yëngu ab julit noonu lay mel ab julit warut di tricher lislaam bu jëkkoon ni ko yàlla tërale mooy dañuy jaam yi taxawul leen ma lislaam te ngeen tekki seen bakkan yii boo demee ca jësbul xulub sëñ tubaab koy leeral nan tanazaau mawtu maha wal kullu minhum sajoa yabqi liha aw yusraha li xubbi maayil xummami jaayante moo yàgg am ci lislaam jaayante léegi la jaayante amut nag léegi da ngay musle rek waa léegi léegi li xew moo doy waar yàlla dafa wàcce woon ñaari kilo yi ngëm yàlla ak liibaru adduna ni la mënu cee ñàkk mooy ceebub jën bu ñu def am limon limon bi ëpp ci ndab li waaye dina ci sax tuuti ñu wàcc ñaari kilo yi ngëm yàlla ak liibarub adduna ngir nga doxe ko sañsee ko toilette ko rafetale ko sa bopp pour mën a doxal sa diine nit ñi transformé ko jël ña ñaari kilo yi adduna liibarum ngëm yàlla tey na doxul ci loolu moom fa ko saxaaba tegoon ba bakkanam bii mu teg ko ci te it ku dee ngir diine boo demee yow mi la xam xam ni bokkul ak dara sëñ Bamba Xaadimu Rasuul laa la mus sa am vie de famille dëgg la ñaata at la door ci àll ñu départ ak moom jël ko yóbbu def ko juróom-ñetti at ci àll bi delloosi waat ko def ko résidence surveillée ba ni mu faatoo ci kaso la maam Seydi Hadji Malick départ dem jàng bàyyi ay bokkam ci waawoon gii ab doxandéem la fi woon dëkku fi bàyyi vie de famille dëkkul fi yëpp te nag juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi dee ci dëkk bi ñu suul la fi dara dox waaye El Hadj Malick dëkkul ci waawoon la fi woon dafi àbb fu mu fi wàcc ba yalla dogal ma ngi ni tay kon ñi wax na diine da tang diine tangut lay jëm yalla fa wu mu demee non yalla du ko nekk ndaw go xamé ni ay dañ koy dañ ci yalla da ngay jaar ci yoon tek ko ci yoon mu jaral la sa bakkan bi parce que jaam bi du jaam nit ki bakkan bi amut sens li sëriñ Cheikh nan ta kenn du ko yaq sa ta bu ko kenn yaq bul jël sax leer nga diko ko jënd sa lëndam la tasiri dunya bi ukhra ya fata seigne touba dani la tasri dunya bi ukhra ya fata man ba anu ren bi bi ja fasa yendam aljana dafa neex bul jël aljana diko jëndé aduna lolu nak mo xew legi legi da ngay jël rek liberu aduna liberu ngëm yalla def ci ñaari kulé ngëm yalla té do non sahaba yi bi ñuy départ di ànd ak yonent bi di bàyyi seen vie de famille. alayhi salaatu wa salaam jógee Màkka jëm Medine yow tam Màkka lañ dëkk te boobu Màkka bari na alal. te ay noobul lañu ñu wan ñu ci bari waa Xuraysi lañ. di doomi buur am na ci xale boo xam ni Mus'ab ibnu Umayr mm. bi muy départ booba ndey ma ëpp alal ca dëkk ba mu bàyyi lépp dem toppi yonent bi toppi diine jaay boppam. noonu la ñuy jaayee sa bopp yàlla jaayante mm. waaye rek. ah man de sama xol yee bu leen dugg ci affaire xol de hmm, waaw ay xolam xol moom de xol bi rafet na yooyu it amul de xol bi rafet nag bu doon loolu tubaab yi ñoon dàq xol tubaab yi yàlla war a lakk ñoon dàq xol fam ab bu ngeen séqee ni ngeen liggéey mbaa nga nekkee ci seen nga xam ne ni ñu fonkee doomu aadama ni seen xol yi rafete ni ñuy defee yu baax ni ñuy defaree adduna pour nit ñi dund bu doon yooyu bu àjjanaa ñoo fay jiitu kon li yàlla soxla mooy xol bi avant xol bi na jëmm ji d'accord ni parce que nee nañ xol bi jëmm jiyee koy seede nga am cawarteg toog fii di waxtaanal nit ñi ci yàlla nga am cawarteg buñ la nee lislaam a ngi nga nangoo dee léegi réew mi koo ci ni kaay dee ngir ngir lislaam mu bañ fan sax tey mii dinaa dégg ñu ciy dugg lu bari bari jaasi ji jaasi ji jaasi lislaam mi duggan yàlla boole koog noonu ñu yóbbaale leen ko dina leen sàmm damm nañ ko yàgg na Oh. xaw ma fu mu dugg sax man xaw ma fu jaay si jënd <laughs> jullee ngi fi jàkkaa ngi fi lépp a ngi fi ana jaay si jë jàkka joo ci dem jumaa joo ci dem war naa am jaay si ca biir na batt boobu ñuy téye amee même buñ cëree yut kenn itam ñu teg fa jaay si teg fa yar yi ñuy dóoree waaye yooyu yëpp éliminé nañ ko eh, bëgg a dem àjjal te pourtant yooyu mooy article yi njëkk ci diine ku tooñ ñu duma ku def lii ñu def lii ku def lii loolu du caagi nit l'islam dafa soxor mais dafa bëgg nit ñi orienté wu tegu ci yoon yooyu nag tey dama leen di bàyyi tey ndax man wéruma te màggat naa léegi <laughs> dinaa maye xaalis nag yàlla xam na ko may naa la mbubb a ngi ci kaw mi ma waroon a gàmmoo dinaa la ko may léegi incha allah ndax daaw maye naa fi waaw ren lay raw ren lay raw daraja yi Muhammadu Rasulullah déedéet dama xam li lima li ma fi def taaw li ma jariñ moo taxit gëm na li nag tey ñëpp daw man dama xam li ma jariñ jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ñëpp ci guddi gu màgg gi موي غوديك جدو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكاي ديفي في جي تيواون تي دكو سونو مام الحاج مالك رضي الله عنه ديكو ديفي في تي كير سونو ياي مريم تاها كو نيانال يالا غودال فانام يالا دوليكو اي خيوال نيمو جيلي كيرم ديف كو كير صلى الله عليه وسلم di fi dalal waa Fidjiri Média nga xam ne ñun ñii ñëpp tey Ngagne Diagne El Hadji Jëli Ñang Arouna Fall Ndiaga Seck ak Ndiol ak ñoom Abdoulaye Diop waa populaire waa populaire muy Arouna wala Ahmedoune Sy ñoo doon liggéey ma moom 7 FM nga xam ne dañoo ñëw rek pour jottalil nit ñi kàddu yu sell yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee Tiwaawoon di ko nettali ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaarale ko ci télévision yi ci àdduna bi yépp jaarale ko ci rajo yi jaarale ko ci journaux yi nga xam ne tey ñii nekk fi tey li ñuy jëlee fii defe naa ña nekk France ak Amérique ñoo ko gën a dégg sax ña nekk Tiwaawoon hmm. ñooñu tey ñoo dal fii ñuy liggéey ca Dakar ren ñu ñëw ñu gis sunu yaay jooju ñu ne dañ fiy organiser gàmm ñu yaakaar ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullit bu nekk am na droit maanaam faratale ci jullit bu nekk mu màggal guddi juddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam faratal ndax sunu maam El Hadji Malick radiyallahu kune ne ne lépp lu mu jël aduna def ko ci wax ci yar ci njabootam woo ci julit ñi lu am jariñ bo demé Touba suñu mam khadimu rasul jël na téré lamma tuddee ko jasbul qulub fi alamil xuyub di ko wax ci dundal guddik yonnati bi alayhi salatu wassalam importance bi mu am di wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriyabi waxna ko guddi juddu yónnent bi mooy guddi gi effacé jaaxle ci àdduna bi képp ku koy dundal yàlla effacé as maanaam léegi yàlla effacé sa njaaxle ci àdduna bi yónnent bi alayhi salaatu wasalaam ñun yàlla baaxee nañu ci diinam la ñu bokk am ay jullit lañu yàlla jël diine yi jëlee ko ci sunu Ibrahim moom mi nga xam ne tey moo sanc makkatal mukarram moo sanc kaaba gi ah, moom foofu la foofu la ko yàlla yónni woon mu yore diina boo xam ne diina tawxiid la diina wéetal yàlla bañ a bokkale yàlla ak kenn moo njiitu ci diina ji maam El Hadj Malick bind ci téere ci fala min shakwa ilallahi kurbati fama gayrullahi jaabiru kasrati muy téere bu neex boo xam ne wax dëgg yàlla tawxiid rek xamuma kenn yaakaaruma kenn ku dul sama yaakaaruma kenn mu jàngal ma samay damm-damm ku yàlla subhanahu wa maanaam yaakaaruma kenn fajal ma samay soxla ku dul yàlla mag ñi jël seen àdduna bi yépp sacrifié ko ci yónnent bi yar ñu ci diine yónnent bi bind ay téere jàngal ñu diine yónnent bi alayhi salaatu wasalaam ba tax ñun ñëpp ñu bëgg yónnent bi mag ñu yàlla leen yàlla fay seen liggéey yàlla taas ñu ci seen barke ñooñu ñu a bëgg yónnent bi sama benn xarit day waxtaan ak sunu beneen xarit bu nekk en ci ci ci Sierra Leone muy discuter ak sama benn xarit ñuy wax entre diggante Sierra Leone ak Sénégal sama xarit benn ko Sénégal du moromu Sierra Leone mu ne ko lu tax mu ne ko Sierra Leone amul Serigne Touba Sierra Leone amul Mame El Hadji Malick Sénégal loolu la rawee yeneen réew yi nga xam ne tey ñooy réewu africain yi ñun dem nañ ci réewu africain yépp doo fa fekk kilifa gu mel ni sunu kilifa yi te kilifa yi ki leen fal kenn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daaw ca Medina ca Madinatul Munawwara damay wax ne biñ fay def conférence ci Abuja ji dama ne boo demee ca Sénégal géwél yi géwél yi dañ koy taggee naan ko géeru géer ñi defe naa loolu lañu wee ci yonent bi man ma ne maanaam sëriñu sëriñ si mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy sëriñu sëriñ Touba mooy sëriñu moom El Hadji Malick mooy sëriñu waa Kaolack mooy waa sëriñu waa Ndiassane kon tey màggaluñ suñu sëriñ mais tey suñu sëriñu s moom la ñuy màggal ndax man ñu loolu lañ xam maam la Hadji Malick sosul benn bés maanaam lu mu woote ah du màggal maanaam léegi du gàmmo ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun nahwa al harami alxarami udul sëriñ Tuubaa ne taasimuhu bi sunnati yaquduna lil janna allahu akbar maanaam dundal guddig yonent bi teg ci sunna moo ñuy xëcc ñu nit yow yóbbu ñu àjjana dundal ko ci sunna nag am naa yaakaar ne bokk na ci li ñuy def jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp toog vraiment ñuy waxtaan ci moom ci ay jikko yoo xam ne ëllëg mën nañ ko roy ci moom loolu c'est très important hmm. yàlla tagul yónnent bi ci aminatu mooy yaayam ci alquran baayam nekkul ci alquran maamam nekkul ci alquran benn baayam a nekk ci alquran yàlla nee na mu nga safara tabat yada abi lahabin wa tabama ak na yàlla tagul ko ci ay fameek ay juddu lim ko tagg mooy jikko wa innaka la ala xuluqin azim sa jikko màgg na moom it bi mu ñëwee daf ne dama ñëw pour indi jikko yu rafet yi bu'istu li utammima makarimal axlaaq la wax la ko yàlla taggee moom la wax ne bi ma ñëwee moom laa indi pour motali ko yonent bi nag moom lañuy ñuy tuddee Muhammadul Amin Amin mooy ko am amaana mooy nit ku wóor nit ku am coloré nit ku yàlla sécurisé yàlla daf ko sécurisé ba dugg ci dinaam ku dugg ci dinaam ci mucc nga Muhammadul Amin yaayam na mu tudd aminatu mooy jigéen ju wóor jigéen ju ñu sécurisé moo jur Seydina Muhammad Muhammadul Amin aminatu yàlla malaayka bi mu ko ko boolee loon muy Jibril moom la ñuy tuddee Ruuxul Amin dëkk bi ko yàlla dëkk bi mu juddoo moom la ñu tuddee Baladul Amin kon amin amin yooyu yónnent bi dafa ñëw pour sécuriser ñu ñun ñëpp suñu àdduna sécuriser suñu àllaaxira ti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ngi juddu bésu altine léppam altine la la juddu ca makkatal mukarram altine la génn makka altine la yegg madinatul munawara altine la génn adduna moo tax day wax ne man altine mooy sama anniversaire anniversaire am du woo ay musicien ñuy tëgg day woor moom pour màggale ko yàlla bis bu mu gënee adduna daf ko daan woor altine mooy deuxième jour ci semaine bi altine mooy deuxième jour ci semaine bi yàlla dimanche la njëkk a bind mooy ahad yowmul ahad mooy benn fan ahad benn lay firi ci arab qul huwa allahu ahad lu muy tekki yàlla kenn la yowmul ahad mooy bésu dimanche mooy premier jour bu yàlla bind bi muy bind àdduna lundi mooy deuxième jour moo tudd isnayni isnayni mooy deux ci arab yowmul isnayni mooy deuxième jour ci la yonent bi gane àdduna yàlla garab yi garab yi tey ñuy toog lundi la leen yàlla bind ñok yonent bi ñoo bokku bis bu len yalla bind bo febaré garab ya lay fajj reñ yi ngay naan sa yaram bu sa roobu febaré sayyiduna Muhammad mo lay fajj sallallahu alaihi wasallam. sallam kon altine jooju moom la yonent bi bokk garab yi motax amna yakar ne maa ngi tudé nañ ko tibul qulubi ma la ngi jumali wa dawaa la ko tudé won yonent bi moy médecin bi nga xamné ne fajj xol yi mooy yaram ni muy fajee xool xol yi nag mooy iman gim ñu indil te njaga doon ko wax bu fekkee gëm yàlla gëm gu mat sëg ndax yàlla suñ iman la ñuy laaj yowmal xiyam suñu iman lañuy laaj yowmal xiyam yonent bi iman la indi li mu indi mooy iman gëm yàlla jikko ci sunu biir sunu diggante ñun ñu bëggante ñu mayante jàmm boo xoolee yonent yi mbooleem jikko buy tas kër yonent bi tere na mbooleem buy tas kër te liy tas e, kër mooy tas quartier liy tas quartier mooy tas dëkk lii tas dëkk mooy tas réew kon yonent bi jikko yi muy indi mooy jëkko yuy indi jàmm jikko yuy indi dal ci ay hadisam rek ci koy wax ci ay hadisam ci la koy wax su ko defee yonent boobu alayhi salaatu wasalaam gane àdduna am intervention la ndax dañuy wax ne bi mu ganee àdduna am na safara su doon tàkk Kisra lu tolloog ñetti junney at comme ni ko waxee keroog bi yonent bi ganee àdduna keroog la safara sa fay waaw kon koo xam ne da nga judd safara si àdduna bi yëpp maanaam fay la muy tekki mooy nitu jàmm way juram di Aminatu wax na ne bi ma ko ëmbee dama daan tëdd ba di ma gis leer guy génne ci sama biir di leeral àdduna maanaam léegi euh, man léegi euh, man diggante penku ak soow leeram googu Aminatu doon gént moo tax tey ñu toog fii di gàmmo di tudd Seydina Muhammad alayhi salaatu wa wa sallam mujahidina

saa waay. Eh, waaye du ngeen def nii yéen. alhamdulilah. nag dem aljana ngoogu yaakaar dem aljana. tag leen jiin leen kañ leen bakk leen ndax jaama miim xaadam dellu miim delloo. Eh. sanga baa nga madina yi nelaw. sallallahu alayhi wa sallam. Oh. jërëjëf sanga baa nga madina yi nelaw. defe naa ne moom la adduna bi yëpp di wax. yàlla yëkkati ko mu raw yónnent yi yëpp boo alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak ñaata kaaf moo ci nekk ñaata kaaf mën nañ koy continuer ñëpp alam na tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum yónnent bi nee na jullit du nekk toppandoorkat boo gisee tey islaam bi jullit ñi xamatuñ fuñ jëm amuñu royukaay lu ne teel ci télé bi rek nga ne waa kii la war a roy te ñi ngay roy jëmuñ fen tubaab bi jëmuñ fen tubaab bi jëmuñ fen damay wax sama waa kër ne leen di seetaan film ba julli jot julli wuloo tubaab bi moom lu jullit mu nga ca la mu nekk yow da ngay am fulla yow yi li nga nekk nga gëm ko lépp loo nekk bu julli jotee bàyyi ko fa nga jàpp dem julli ku bëgg yónent bi noonu lay def دون واخني من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي الى الجنه دغول فيم واخ كو دوندل سما سنة صوب غاما تي كوما صوب ماك ياو نيو اند بلاص بوكو بلاص جا جنه كو دوندل سما سنة لا واخ دوندل سنة يوننتي بي موي ني خول نيم دون جامو يالا ني ديكو جيم دو يوننتي بي مي ني رو يوننتي بي وليس نفع الله بنا بلا amalik wa tabi'an sunna dal muxtaari taxtani loolu sunu mam El Hadj Malick moo ko wax ci li ma doon wax léegi ah. maanaam bëgg naa te toppaloo nee na du la jëriñ kon toppal sunna yónnent bi alayhi salaatu wasalaam boo ko defee di nga am koom mooy li ma doon wax noonu rek du complexe jullit du complexe foo nekk ci àdduna wane ni yow jullit nga modèle nga war a doon da nga war a nekk royukaay waroo doon jullit boo waxee ñu ne cam

jëf jure yi muy jëf nii di jëf ay beñe kere bi mu ko jëkkee def yaayam yaayam da ko ni mami lu ngeen di def mu ne ko danoo bëgg a màggal yonent bi ca kaw daal di ni moom dana génne xaalisam defar beñe ñu def koy caaxaan ñu dem lal fak basak mu defar beñe woo ay xale yu jigéen ñu di ko séddale xam xamu leen ko ni ngeen ko xami nag ndax bis dina ko fekk tey ci suba rek woo ma ni ma njaga mbaa fàttewu leen bis ma ne ko ci lan mu ne ah conférence sama wuute ak sama nekk fi na ma ci góor góorgóorlu nu ngi ñaanal itam bàyyam ba fee la daan toog daan ko fekk alaaji Ibrahima Samb yal na yàlla yeesal yërmandeem ma tuuti balaa ngay parce que fa nga jàppoon dafa baax mhm. xam nga dama mhm. ngi doore woon ci final rek dañ ko baax. ko genre wërngal wërngal ko. alaaji njëkk a ñëw waxtaan ci ñaareelu at ci la ñu jëmm yi dal fekk na ñoom dañ doon doxantu rek ba yem fii ñuy waxtaan ñu ñëw def lu am solo ñoom ñi euh, dañ leen présenté wul boo léegi waaye ñoom comme dañ leen joxoon kàddu ci loolu bi ñu ñëwee xaarul ñu dañu door dajale nit ñi ñun ñuy doog a jóg. waaye ah, soo ba ñoo xam ne suñuy doom vraiment ñii ñoo xam ne mel nañu tuuti. muy ñoo xam ne ay jàmbaar la te dañ fi jaaroon rek def fi une heure de temps première deuxième année ñu ñëwaat. ndax fii ñu moo ñu di ci kër gi hmm. bu populaire dafa naa kuy génn populaire di nga gis ñu signé sport Hamidou hmm. nekk ci kër gi li ñu indi ci kër gi baatu na hmm. Futurs Médias da daan luye kër def ci léppam ñuy jege jumaa ji am at mu bëgg a ñoo yóbbu fële ci yoonu Louga fële ci pompier bi ngeen ne pompier bi ñu ñëw ne duñu dugg ci kër googu am xale bu nekk ci rajo yi dajeeg Cheikh Anta leen am naa maire bu baax boo xam ne këram boo fa ñëwee lépp la lay defal moo tax sonn si nañ ko ñaanal yàlla na gudd fa. waaw tey Mariam Taha. Mariam Taha Taha voilà loolu dina ñun fu ñu mës a togg yi day mel ni tout lekk màlle chauffeur yi duñu toog fu ne am na ñoo xam ne dañ ñu mere actuel mere sax mais comprendre nañu. daanaka daanu kooku nag ndeyam ju baax jële toog. nga xam ni moo moo moom mamee tàmbali lii maire bi ñëw jàpp ci de du maire bee ko fi tàmbali maire moom tolluñu woon sax ma nga woon ca waañ ba mami moo tàmbali woo ay xale yu jigéen ni leen dem leen jëndi beñe ma ma xiiw ndax dañuy gàmmu ngoon mu ne ca Italie nekk ca liggéey ba te leer na ma ni buy wax ak bi dina ko wax ni ko ah, bis boobu kat euh, ta euh, jataay boobu moo ma ci ñoom démb rek daanaka yi dañ ciy jot ñoom site bii dafa bari doole macha allah waaw moom lu fi xew léegi la koy daal di dagg rek sànni ko adduna man cee su ko defee tey danaa la bàyyi nit ñi ñoom danañ am ay laaj yu ñuy laaj wax naa la ne nag dama fee ñaanal laaw joxe fi sallallahu ala muhammad lu mat fukki nit woo nañ ma fi kenn ku ne ni man soxla samay soxla yëpp saafaru samay soxla am na ci ñu ma oo ni ma am na ñu jëkk ba am doom am na saaru alquran bu tudd suratu taha ma anzalna alayka alquran li tashqa kon bu melee nii wax dëgg yàlla ñun ci tur bi loolu du doon lu tumarake ci ñun islam bii nag nga xam ne liñ ciy tënk rek comme ni ko mbokk yi waxe waxtaan lay doon dañuy wax ne ñun suñ jamono du jamono ñuy wax ngeen naan eskay mag ñee ko amoon mais ñun amuñu ñun dañoo bëgg bu ñu waxee bu ñu paree lépp loo fi dégg te leerul nanga nga laaju bu yëf gën a leer ndax moroom la ñun duñ sëriñ ay taalibe lañ luñ fi wax te leerul rek boo ñu ko laajee rek mu gën a leer kenn ku ne am loo waxtaan jigéen ñi toog muuru bu islam bi yegsee fii tey ci yéen la bu dugaloo nag jigéen kenn du comprendre Seydina Muhammad ndax Sayyidatuna Xadija moo tax bi oh. ko ñëpp bàyyi mu nekk jigéen ju yàlla barkeel jigéen ju mel ni sunu yaay Mariam tax nekk milliardaire ci biir Makka bokk ci yax bu rëy ndax jamono jooju yax bu rëy dafa amoon ndax jamonoy ceddo la woon boo ko nekk sharif am doon milliardaire moom Sayyidatuna Xadija nekk ci màggatal mukarram nekk jigéen ju baax jigéen ju yiw am na borom kër sëy na ñaari yoon avant muy sëy ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam am na doom ju tudd Hind bintu Haala yonent bi am ñaar fukki at ak juróom sayyidatuna Xadija am ñeent fukki at kon ma gën a yónnee fukki at ak juróom am déet sayyidatuna Xadija bëgg na borom kër waaye mag ñi ci màkk seen jikko doy ko xoolul xalam parce que milliardaire la jigéenu milliardaire du ut góoru milliardaire ni moom day ut góor bu ko mën a yërëm góorub taalibe ok xool mag ñi ci màkk kenn kenn doyu waaye li ko jaaxal kenn ko doy mooy bi alayhi salaatu wasalaam waaye li ko jaaxal mooy daf koo mag moom ndax 15 ans de différence 15 ans loolu xam nay doy waar yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg na ok yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk na ci biir màkkatal mukaram am ñaar fukki at ak juróom saydatuna xadija radiallahu anha am na ñeen fukki at kon magee na yonent bi fukki at ak juróom Warna yang am borom kër waaye jikko yi ci biir màkka ak kilifa yu doyatu ko lan lay xool góor gu am jikko lenn ko jaaxal ci yónnent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam la ko gis ko ñaar fukki ak juróom ak ñeent fukki at bi nekk na nekk na fukki at ak juróom sayyidatuna Xadija ne moom yónnent bi du ko bëgg ndax yónnent bi xale lay bëgg ndax ci yoon ci ñun dañ koy demee góor ñi bu ñu wut soxna soxna su ndaw lañ bëgg na bi alayhi salaatu wasalaam ci ñooñu سيدتنا خديجه جيل يونتبي عليه الصلاه والسلام امبورشيكو دون باترون دا فا نييو جي عبد المطلب نيكو عبد المطلب مو نييو جي سيدتنا خديجه نيكو سما دومو فرير موي عبد الله مونوكو كان مونوكو محمد مونوكو خالي بو باخ خالي بو ما ييرم بو ام جوم لا عبد المطلب نيكولون كو يالا جوخون ورسه تا بري وون جوخ موي وي جور علي نا ابي طالب arab daf yàlla jox la njabot te bari wolo alal sa njabot ñoy séddoo seddo ki day jël dom ki jël dom ki jël dom ñu wàññil la dépense bi ba nga dese ñaari dom wala ben dom mu dëppoog sa alal lolo taxon yonenti bi Ali Ali na bi Talib yonenti moko moko ko yar Abu Talib boobu nga xamné gis na ne yonenti bi alayhi salaatu wasalaam ku am yërmande la ndax Makkatal Mukarram la juddo dama koy wax sumay def islam et la jeunesse ci Dakar islam et la jeunesse ma ne nañu roy yónnent bi alayhi salaatu wasalaam ñun ndaw yi ndax dafa dëkk màkkatal mukarram maa ngi ciy wax ci anam bu kenn xamul bu may wax ak yi damay wax ñoom langage bu ñu mën a dégg yónnent bi booy taawun la booy taawun mooy ku dëkk Dakar ku dëkk ci capital bi yónnent bi màkkatal mukarram la dëkk waaye dafa dajale nagu waa màkk yi ak xaru waa màkk yi ak gëléemu waa màkk yi di ko sàmmal ñu koy fay mu koy jox Abdul Mutalib mu koy jox Abi Talib di ko ko dimbalee kon yónnent bi foofu dindi na maa dëkk Tiwaawoon doo ma fi sàmm lan lay am njëriñ yaa dëkk Tiwaawoon doo fi sàmm ñu lay fay nga dëkk Tiwaawoon amoo dara fajoo gàcce amul njëriñ kon yonent bi moo dëkk Makkatal Mukarram bokk ci Quraysh waaye am jom bañ a tàllal loxoom tax mu dajale nag yeeg xar yaag màgg yépp ne màgg may seen sàmm su ko defee muy sàmmal waa màkka waa màkka di ko fay mu koy jox abay taalib bi nga xam ne mooy wajuram kon loolu ñun ndaw ñi defe naa ne liñ ci mën a jàngee mooy bu ñu complexe bu ñu xeeb te la jógee sayyidatuna Khadija aboosu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu koy jaayal diggante li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf di dem Sham ak ak ak maanaam ak Yaman di def commerce commerce boobu ci la liggéeyal sayyidatuna Khadija ba sayyidatuna Khadija jikko yonent bi doy ko Khadijatu yàlla def cofeel jaar digganteem ak yonent bi waaye nag naka la ko koy waxee naka la ko koy waxee ndax ba àdduna yi baax bi jigen daan na am kersa jakarlo gor ne ko je t'aime ba addunay baax léegi lolu am kersa ñeex Sayyidatuna khadija bëgg na yonenti mais naka la ko koy waxe mo am bayna benn tam bu dudu Nafisa nafisa du nafisa du la ko di nafisa du ñew ci yonenti bi alayhi salaatu wasallam ne ko do ut soxna yonenti bi ne ko man am wa khalis comme ni ko gor ñepp di waxe Nafisa ne ko du problème mu xaalis yow wax ma rek ndax bëgg nga wala bëgg bëgguloo yónneent bi yàllaa ko yónnee yónneent la ñaar fukki at ak juróom laa lay wax na ñun da ngay am 30 ans 35 ans 40 ans doog a takk soxna yónneent bi 25 ans teel a responsabilisé boppam teel a responsabilisé boppam Nafisa proposé ko Sayyidatuna Khadija Khadija ne ko yónneent bi du ma bëgg ndax dama ko magee fukki at ak juróom te sëy naa ñaari yoon benn sëy bi am naa ci te moom ñaar fukki at ak juróom la yónneent bu du man yónneent la du question jigéen a ko yitteel mais mission lay dox xadijatu ñu wax ko yónneent bi yónneent bi moo tax diggante xadijatu ak yónneent bi alayhi salaatu wasalaam seen rek xadijatu boobu moo jël alalam jox ko yónneent bi boobu yónneent bi amul dara ñëpp bàyyi yónneent bi xadijatu ci boppam jël ko aar ko keroog bi mu bàyyeekoo ci xuntu ba defe dem ci xuntoo di ja Hira, xira ca makkatal di fo wetal yalla jibril fekk ko ko nan ko iqra yonent bi ba fa joge dafa tàggoog sagom parce que ñun buñu gisee jinn rek dañuy jom yonent bi gis malaika bam mu gisee malaayika ba ci kër ga problème bi mu am ke dindi problème bi mooy Sayyidina khadija tun sakkanat بالقلب خائلتين da yokku de di nga dem ba saal bii du ci xaj de dama la koy wax fii yónnent bi ku ko sosal dara ci la jëm waaw ah, waaw amul arrière de kanam te yaakaar naa man ren laa doog a ñëw yéen daaw yéen a ko sosoon fe seetlu leen at bu jot suñu soppeeku ah, ah, bu déwénee wu leen rajo waaw bu déwénee moom ay baafal yu mag bëmër la ñu leen rajo su ko defee mu mel ni léppay gën a yokk yal na yal yëpp gën a yokku. defar nañu loolu dégg. waaw laay jom mooy takkaat bi yónnent bi yokkoo. am na laaj yu ñëw. incha allah laaj yi waaw waaw. waaw si dafa yónnee nee na. Hmm. génne katub asaka la. Hmm. waaye dafay génne asaka. Hmm. du ci laaj. yenn saa yi mu mën koo génnee dajale mbooloo mu bari kenn ku ne mu génne juróomi dërëm jox la. ci misaal nee na am ñu ko ni boo ko booleke seet kenn ku ko yellool nga jox ko ko nee na. laaj boobu daal ndax ñii ne ko di loolu moo gën wala tasaare gi moo gën wala euh, léeg-léeg mu jël seet ñi ko jege am na ñu ko jege waaye danay jël yenn saa yi yenn saa yi mu seeti keneen koo xam ne sax moom moom la ko gën a yéene mhm. mu sori lool mu yónnee ko ko jël ñeneen ñeneen ñoo xam ne man nañ ko leene waaw mu ñaari laaj yooyu daal lay laaj am na solo trop maman des na yeneen ñaar ko koy ñaanal yal na ko yàlla na ko yàlla gën a dooleel xam nga ak zakat baatu zakat li muy firi mooy sellal sellal nga am alal am lu ci lu salte nga sellal ko mu ngi mel ni nga am soow dama bëgg soow moo tax dama ciy joxe misaal mu am ay karawu nag yu ñuul yu ci rax nga jël tame segg ko pour karaw yu ñuul yooyu doo ko naanaale doo ko naanaale loolu mooy asaka ci alal su ko defee la ca des nag bul yaakaar ne wàññeeku na yonent bi daf ni maa naqasa sadaqatun min maalin sarax wàññiwul alal la nga ca génne bul yaakaar ne wàññeeku na waaye la nga ca génnee day gën a barkeel li ci des li ci des mooy a annumu barakatu barke mooy annumu loo xam ne comme mba gàmmoo gi day gën a barke ba ngeen koy sos fan la woon mu ngi màgg day gën a barke xamu leen nag fu mu jëm loolu mooy zakat su ko defee mu mel nii islam dafa bëgg kuñ jox ren zakat bu ne moom mu joxe zakat waaye dootu ko jël xam nga wax ji ñu jox zakat ren nga liggéey ci bu déwénee da ngay génne zakat mais dootoo ko jël kon jël un million tas ko par mille francs kooku mille boo ko joxe góor da nga koy jaxal da ngay seet ko amul départ nga jox ko un million mu nekk capital ci moom mu ut fii tabal fii ci sa buntu kër lal ko fi góor góorgóorlu bu liggéeyee bu déwénee mu génne zakat buñ ko doon def noonu bu yàggee Sénégal dootu am faqir mais fii borom xaalis yi dañ koy génne tas ko par juróom par ñaar dërëm juróomi 1000 francs la mën ci koo ko jox da nga koy jaaxal jox million yi te nga ne nag bu déwénee dootuma la ko jox góorgóorlu liggéey ci bu déwénee nga génnee asaka itam kon maman asaka noonu lañ koy génne bu dee 1 million seetal kenn ko sonn nga jox ko ko te yow it buñ la te yow it toog toog toog toog di nangu asaka rek du yëfu ko <laughs> ak bu jot nga ne asaka ji pour lan ba kañ du yoon buñ la ko joxee ren fexeel bu déwénee nga génne ko kon koo jox leen 1 million bu déwénee bu ci liggéey bu ko ko joxati seetal keneen parce que noonu lañ koy joxe. jël bi nag. jël bañ ko génnee ren. maanaam ñi la gën a jege. merci beaucoup nga gis nag li mu bëgg mooy booy joxe joxal ñi la gën a jege soo amee mbokk yoo bokkal deret ñu ñàkk boo leen joxee yàlla fay la ñaari pay ak boo ma joxee man tayib soo sa yàlla jox la benn fay ndax mbokk yi nga jege boo leen joxee jokk nga bokk dimbali nga faqir yàlla fay la ñaari yoon. bu dee mën tey fose nga joxe nag yàlla dimbale la parce que dimbale nga faqir benn yoon nga yow kon dimbale say mbokk ci bari nu ko ami million ñu lay woy mbokk mi du ndékki amul chance mbay ci sa wewu tànk yonent bii ñuy waxtaane yàlla def na ko wa anzir ashirataka al aqrabin i waaraate yi njëkkee ci sa waa kër yonent bi woote tour de famille woo waa kër yaayam woo kër baayam ne leen lii la ma yàlla jox fatimatu bintu rasul lu sama ala la ngi lu la neex jeelal mais yónnent bee ma jur du la jeri ñoma xew loolu bi ko yàlla nako wa anzir ashiratakal aqrabin la wote famit wa këram wa kër baye wa kër yaaya yéen wa kër sama yaay man la yàlla yoni sama ala la ngi lu ngeen bëgg jeel leen waye bu yaw yowmal qiyam may ni yaay sayyiduna muhammad amul chance mok ku ñe tuddé saad ni jaayam la woon dafa xaar ba yónnent bi baye ko Makka dem Madina yëf yi nooyi nepp ñëpp bëgg yónnent bi mu ut dara ju rëy dara wu naar yooyu jëlee ko Màkka ñëw ma Madina kër gu mu taxaw rek salaamaaleykum may tonton wu Seydina Muhammad di bëgg nit ñi jox ko xaalis a ibn Khattab moo ko woon ko ko sumil sa dara ji nga teg ko fële te xool li yàlla sant yónnent bi nga jaar ci waaye hmm. ne jaadu na bi naan may ni jaw yónnent bi amul sens su ma ko gisati dinaa dagg sa dox ji hmm. kon yónnent bi du ñu bokk ak moom ci deret dañuy bokk ak moom ci jëf hmm. li ko yàlla indi nga góorgóorlu ci mais bu dee jege ki la jege. waaw te du sa mbokk. am na ku la jege say mbokk sori nañ la. waaye ki la jege te du sa mbok mhm. te faqir. léegi nan ngay def c'est important asaka dañ ne dëkk ba nga dëkk liggéeyee ca alal ba booy génnee asaka faqir dëkk ba ñoo ci ñoo ci gën a boo nekkee Sénégal liggéey fi alal Sénégal nga ko liggéeyee xam nga ñu ngi lay gis kon sooy génnee zakat xoolal foqara yi ne Sénégal nga jox leen ko gis nga islam dafa yaatu loolu dafay sécuriser sa xaalis parce que dina ci dëkk bi doon fi gan man ma dëkk fi aw ma tous yow nga ne fi di liggéey ba yor fi ay milliards te sa milliards yi doo ma ci dimbale bu yàggee ma agressé la ah, islam mu ne ñamu bët na génn kon fi nga liggéeyee alal ji boo génnee sa kat gi jox ko waa dëkk ba mu sécuriser la barakallah léegi am na keneen ku yónnee nee itam xale bu jigéen la xale la mais nee na ci biir famille dafay bëgg a te moom ki mu bëgg a sëy ay bokkam xamuñu ko mais moom xam na jikkoom ju sell te ay way juróom ne dañ ko bëgg a may rek seetuñu sax mais dañ ko bëgg a may seen mbokk moom li muy seet nag ba bëgg a sëy kooka yàlla rek la mais ay mbokkam dañ ko bëgg a sëyloo rek pour problème mu famille léegi nag te bëggut a ay mbokkam bëggut a it bàyyi waajoo ndax lislaam bi léegi ban solution la solution bi ma lay jox mooy da ngay fexe sa waa ji mel ni man ba may labat sama soxna <laughs> ma ko doon labat te mbokk mi mënuñ ma takkusaan la fay dem fa julee takkusaan maa leen di jiite <laughs> maa leen di jiite <laughs> fexeel ki nga bëgg jaxasoog say mbokk bu ñu xamee jukkoom rek may lu yéen xale yi jigéen yi doom dafa foor ci nit sa doom ki nga koy jox danga koy xam yéen ñi ngeen bëgg seen way jur yi yëpp a ay SMS yi ngeen di wax fi ñu ne SMS góor dina la bëgg nga bëgg ko du xam sa kër SMS rek. ma ne la ba may labat ne dama ne ko du fi ñëw guddi ba jëg laa fi ñëw 4 heures moins le quart ma ne ko xaw ma sat léegi. fa lay jëlee timis commencé baqara yaa ngi xam ne kii dutu alxuraan du ñu ma jox. campagne bi baax baqara ñu bëgg ci jigéen da ngay jege ay mbokkam bu ñu xamee sa jikko bu ñu la bëggee rek may c'est que yii c'est important xam nga l'islam léeg-léeg léeg-léeg gars yi ni nangam soo di defee ci listal la te fekk na booba l'islam da ko programmé waale parce que li waa ji am maanaam li ñeneen ñi am ba di ko takkee soxla l'islam a leen ko ëppale nañ boo yàggee dootoo gis Charles Son wala coleen yóbboon yëpp boo ko gis parce que nag Sénégal yëpp fi ne ah da Serigne Moustapha Sy waxoon bi muy jël jigéen ñi di jàngal taysir ñu naan jigéen ñi muy jàngal def na ku taysiru taasu fii Sénégal la ah, grand théâtre am de surtout loolu war taasu fii Sénégal la grand théâtre grand théâtre a ngi di sa Sénégal luñ organisé grand théâtre Abdoulaye Wade baxna mais lim ko tabaxé sax baxu Sénégal duñ ko utiliser ci lu am jëri ndax pomé lako nak ñong fay def nak ñu ngi góorgóorlu sax di fa def islam ak yu kenn xamul mais pomé gëna bari kon colin bu ne mu ngi Sénégal kon bu xali jigen ni jëlé sen seen di leen sol des sol nañ leen encourager rek bu yagge ciol gi baax man la noonu la ko gisee wax dëgg yàlla. barkalla mm-hmm. ah xamna waxtu yi ma ngi ma ngi sori. Mm-hmm. dañuy liggéey. Mm-hmm. te dañuy dellu liggéey. waaw man nak dama bëggoon comme tay alaay waxtan wi tay mom gis ngeen ko wax dëgg yàlla neex na jëlee nañ ci xam-xam dolli ko nan ci te àdduna nag lii rek moo am njariñ gis nga lu lu am solo yóbbu hôpital yi nga làmb say poos dañoo dara waaw xam nga ñoon kiitaa ngi bari day taal lépp loo jóg yàlla jiitu la ci boo koy def soixante-dix-neuf boo defee astaghfirullah 777 ngay def istixfaar dugub sëriñ nag nañ ma jéggal ala góor yàlla ya waaw koo ñam rek mus ko mu neex. waaw ci alxuraan. ma ma ko mag ñi ñu wax ko ma utiliser ko mu jàll. mu jàll ma bëgg koo maye. te mag ñi rek ci côté boobu rek lañ daan doon. tey wax na leen léegi ni leen am na lu nekkul ci alxuraan. mag ñee ko créé utiliser ko mu jàll ci yàlla. te defe naa raarul xiraa néewul ci alxuraan yonent bee créé dem fa di làmb yàlla ba far ko def léegi nag waaw waaw ma ko astaghfirullah moom ngay def 777 def sallallahu ala muhammad 368 ah barke Muhammadu Rasulullah do bank mu te do dug ci mbooloo ku ñu la ci ndax baatu quraysh ba ca nek askan wo yàlla li ci tayit wax da leena acc fo xamni kuy tuddu baat bi do do do ja kon nak mu talal loxo yi tey joxe ñaanam taqina imama الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا نبي الله ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله والحمد لله رب العالمين عذل إن شاني قد يرى هذا قلبي بخير قد سرى قد سرى الجفا طيف الكرم بين في ضلوعي لوعة نار الجوى بين الجوى كيف أثني كل سيد في الفرا هدى قلبي من خير قد سرى nga xam ne xibaar yi dafa baax borom guddi gi rek لك جيبات جبك مودة سباتا lay du dox di geestu ginnaawam bëtam du xool dul fi mu jëmmani yar bi ci mbay moom laa yéem ku mel ni mbay dootul yomboo. bu leen ko fàtte di ñaanal. xalifa mbay mi nekkoon yàlla la rafet bi bootal. njaboot gi Maodo si yar bi muy yore ci mbooloo moom lay saxoo saa yu weetoo ngir bëtt yàlla bi ko sëfoo. tax na du jëfe lu dul yoono bu leen ko fàtte di ñaanal tarixa may mi mi lekko moo yoroon xilaafa ji boota jaboot gi mawna si boota lay masul la jëfe ci biir néegam lu muy rus képp ku di soppeem xam ko ci moom ngir maandoom maam ak moo ko ko séedéel. bu leen ko fàtte di ñaanal. bu ni taali ba mbay mi fi nekkoon. gerte laata ji bootoon. njaboot gi Maodo si bootoon. lay bu daan doxantu ci kaw taaxam. te waawoon fàq di ko seetaan mu mel ni gan ci seen